waaw maa ngi leen di leen ziyaara di nuyu patriote yëpp askan bi moo leen nuyu di leen ñaanal jàmm di sàkku seen ñaan góor ak jigéen mag ak ndaw yàlla dafa leen sutura may leen wér ak gudd fan may ñu ndam dooleel ñu ci combat bi yàlla am na ko mën na ko kenn def yàlla bu yàlla tas yaakaar te incha allah dinañ ci am ndam ci kàttanu yàlla ndax dëgg <clears throat> du maasum fen de mhm. dëgg neexul maa ngi leen di bu baax a baax di ñaanal suñu leader Ousmane Sonko yàlla may ko wér a gudd fan kàttan fekkee tal sutura gu saxul sa bu yaatu lépp lu ko waaye di yéene di ko xaar ci moom rek yàlla daanu ci kaw borom di leen waaw maa ngi déglu Ousmane Sonko dañ ko woo Ousmane Sonko dañ ko woo xam nga patriote yi ma xamal leen leen fii yàllaa fi ne gis nga buñ ne dañu woo Ousmane Sonko woowuñu ko bu leen ne déedéet de sama gars yi dañu tiit fi mu ne nii dañu tiit parce que seen yu bon moo wàcc seen kaw defoon nañ weer yi at yi du ñëw ba ñuy doog a toog pour ñoom at yi du mas a jeex ci kaw suuf ba ñuy doog a toog seen stratégie moo leen nax seen jabarkat ya leen nax ndax dañ leen di ngeen toog ba doyal jóg ndaxte booba gëm nañ seen i ndax ku gëmal yàlla njabar ngay jël te ku gëm njabar njabar toroxal la alak la Ousmane Sonko nag dañ ko woo woowuñu ko ñun ñu ngi xaar ñun dañu pare pour tout man nag yaayu askan bi laa li may wax chaque jour bokkuma passif bokkaalewu ma passif mais doomu Pastef doomu askan bi la ndax ay mbindeef nañu te askan bi ay mbindeef nañu man yaayu askan bi laa damay xeexal askan bi tey jii su ma gisee ku dëggu APR ñu koy xeex dama koy xeexal dama koy xeexal ndax ci doomu askan bi lañ mais dama leen bëgg a xamal ni Ousmane Sonko chaque jour na ngeen jàpp ni tey tey dañ koy woo chaque jour na ngeen jàpp ni guddi guddi dañ koy woo moo tax dama ni fii ba 2024 bu portable yi fay bu télé ci poos fay connexion yi nay dox ku ci jënd sa connexion bu connexion jeex ñun dañu pare de ñun kenn mënuñoo tiital kenn mënuñoo xoqatal te kenn mënatuñoo bett parce que pare nañ de tout yàllaa ñu pareloo dama ne fii ba 2024 bu téléphone yi fay bu connexion yi manqué ndax ñun pare nañ saa yu ñu woowee Ousmane Sonko léegi léegi sax bu ñu ñëwee woo nañ ko bettu bettu ñun mbedd mi dina fees dell xale yi sax dañoo nam woote nag xale yi nee nañ dañoo nam woote ndax jaay doole bee fi war a jeex te xam naa ne loolu rek koy mën a jeexal. woo nañ Ousmane Sonko wala convoqué nañ Ousmane Sonko incha allah keroog la am jàmm ba faw nag keroog la ñuy moom suñu bopp ba faw ndax nee na da leen du téegal du ma yëpp borom lu waaye ren di loxo lay naaj ku wootewul jàmm di woote fitna fitnaay daanu sa kaw maa ngi dégg ay mercenaire dañuy wotal Ousmane Sonko mercenaire boo koy rey Ousmane Sonko lii patata patati c'est faux bu ñu ko wutelee man dama naan c'est foo li may wax chaque jour man yàlla laa gëm stratégie yàlla laa gëm Ousmane Sonko tooñul dóorul faywul mi toog ci roqam di liggéey di jaamu yàlla yow nga ne njabarkat yow nga ne juif yow nga ne ku gëma di yàlla yow nga ne ku weddi yàlla di nga topp ku topp yàlla tooñ ko yàlla may la ci ndam non loolu ay kàcc la man jànguma loolu sama diine gisuma loolu déedéet te gëwuma loolu itam Ousmane Sonko nag nii rek ñuy def ah. dañuy xëy xëy ni dañ koy woo journaliste yoo xam nga la lan la seetlu réseaux sociaux yi moo tax tey réseaux sociaux yaa ngi mel ni kaani tey lay lay la laa ay waay tey waroon na nekk suba waay ay waay waroon nañu woo Ousmane Sonko suba non waroon nañu woo Ousmane Sonko suba ndax Sénégal doxe fi am jàmm ba faw ndax yuuxu li ma leen wax chaque jour da ngeen naan yuuxu dina dina jib fu leen ko foobee yomal xëyam yuuxu fii lay jubee fu ñu ko foogewul gis nga gouvernement bi ñi ñi tànn naan jëlee li ma Ousmane Sonko ñi ñi tànn teg seen wet naan protégé ma ñoo ñooy wëlbatiku doon seen safara ñoo ñooy wëlbatiku doon seen malaakul mawti maa leen wax lii parce que xam nga fan laa ko jàngee imagineel aram tarakay fa fii tëdd lii xool ab ab raaxaa expérience bi mu amoon pour toj kaaba ga doole gi mu amoon pour toj kaaba ga yaakaar gi mu amoon pour toj kaaba ga waaw ba mu demee ba kaaba ga nu ñay ba def <laughs> ku ko waxoon abaraxaa ba la moo jóg du ko gëm de mais ba mu yeggee lu ñay ba def ñay ba daa gantal abaraxaa tiim kaaba ga lank na du ko laal jib kaaba bi lank na dootul dem kooko yàlla man loolu laa gëm ci Ousmane Sonko Ousmane ko ñi ñuy yónnee ak ña ñuy yabal ak fañ koy waxtaanee wallahi ñooy posonu ñooy posonu gouvernement bi ñooy malaakal mawti gouvernement bi moo tax man leen yuuxu dina ci fuñ ko foogewul te fu leer laa ko teg ku nekk sa yëg-yëg sa gis-gis dañ la koy nangul sama gaay yi ku bon loo gis lu bonoy wàcc sa kaw pexakatu bon loo gis lu bonoy wàcc sa kaw sama gaay yi kaddu yàlla du dellu gannaaw waa tasimo bi hablillaahi jamian wala tafaraxu yàlla nee na sama jaam yi jàppoo leen nekk benn te jamono jii Sénégal saf na sap xale yi mag ndaw góor jigéen ñu ñëpp jàppoo nañ di xaar di déglu suñu nopp yaa ngi xasan suñu tempan yaa ngi jooy ngir lan nam ñu déglu benn kàddu nañ bëgg déglu woo nañ Ousmane Sonko wala convoqué nañ ko boobu la xam ne doom neex na ndayam du gouvernement bi dañu am nday am baay am bàjjan ñu ne Ousmane Sonko amul nday amul baay amul bàjjan ku ko wax kàcc nga ku ko wax kàcc nga ku ko ci bëgg xam rek woo leen ko ku ko ci bëgg xam woo leen ko Ousmane Sonko manqué wul nijaay bu baax usmaan Sonko manqué wul yaay ju baax Ousmane Sonko manqué wul maam ju baax Ousmane Sonko manqué wul nitu yàlla yu baax yi di waxtaan ak seen borom dafa am nag ñoo xam ni ma mooy seen kër seen nijaay mooy na seen papa mooy Abu sen mag moy umu jamil dama ni sama gaay combat continué força força ken du gëm yalla ba yag di ragal dedet gis nga sa yoo gëmee yalla jox lepp yalla mo lay jox fit ba kula la lak ngay say safar non dama ni xam nga lu tax ñu def ni tay bu len wedd de bu len wedd de meun nañ ko bëgg wo du xol réseau bi du xool fu ñu tollu ndax tombé na ouverture des classes ndax xalé dinañ tayal wala jeune yi dinañ tayal ndax ngeen seen bopp suba suñu xey ñu ngi and ak suñu activité suba suñu xey mi ngi melni tay nañ pikiru taya bi tay nañu gëna sawar tay la suñu yaram gëna nangu tay la suñu katan gëna dess ak ñun tay la suñu doole gëna nekk ak ñun yalla jox ñu ko doole na teral nañu yor yoruñu doole njabarkat yoruñu doole complot yoruñu doole dictateur yoruñu doole assassin yoruñu doole kunkange yoruñu doole mervie ñun suñu doole yàlla ñu ko branché xasbuna laa ne man waqil wallahu yaqsimukum min nas allahu akbar da ngeen a woo Ousmane Sonko dëggal leen seen bopp waaye ñun ñoo leen ko gën a yàqamti xam nga dama ni Macky Sall bu teddee ma torox bu teddee ma torox bu teddee ma torox bu yeggalee mandam bett na ma torop torop torop bu ko yeggalu lu ma leer la bu yeggalee mandam kumpa yàlla la duma ci wax bu ko yeggalu lu ma leer la mais gis ngeen Macron ah bu amé jamm ci mandam bi jaaxal na ma trop fofu la yem Macron bu amé jamm ci mandam bi jaaxal na ma trop trop trop parce que man munuma da ngeen fitnal doomu adama di fitnal serignu daara yi di di di di di truk serignu daara yi di fitnal julitu yalla yi di fitnal gor ñi ngeen da ngeen am jamm ku leen ko wax waxul deug katch na te yene gi sen atup torox tangé nak yene gi sen atup torox tangé ngeen bayiko xel bu yeboo ngeen tambali commencé baxal ndox diko ko naan te xam seen xol dotul sedd ci kaw suuf dem leen toog taxaw ci seetu ngeen jàkkaarloog seen seetu yi xoolaat seen yaramu démb ak seen yaramu tey jàkkaarloog seen seetu yi ngeen xoolaat seen karamu démb ak seen karamu tey du doon benn parce que xam nga lu tax mbugal wàcc na seen kaw te xamu ko dootu leen am jàmm ci kaw suuf seen xol dootul sedd ci kaw suuf parce que da ngeen tooñ wàllu tooñ suñu borom bi te meru suñu borom dina wàcc seen kaw Ousmane Sonko nag nii nañu def ah patriote yi tout le temps jóg leen taxaw di deglu bu connexion yi fay bu dara fay gis nga tay ji tay ji bu réseau bu tangul won jeur bu leen neexon tok ba ngoon ne ko am convocation ça dépend ci askanu Sénégal rek motax mané askanu Sénégal askanu Sénégal gën leen taxaw gën leen paré pare pare ngeen nak, pare ngeen mais gën leen paré pare xamni limay ne wax chaque jour xex bi yalla da ci dugal loxom parce que ñi ñu war a xeexal ñoom seen bopp ñooy xeexante seen biir ñi jëlante ay yar di dóorante ñi ñu war a xeexal ñoom seen bopp di poisonante ñooy poisonante seen biir li ma leen wax lu leer laa leen wax ñooy poisonante seen biir ñooy rayante seen biir nañ ñay ba gàntaloo woon Abraha noonu la yàlla di gàntaloo armée bi noonu la yàlla di gàntaloo ay nitu Macky yi nga xam ne dinañ taxaw carrément ne ko defuñu li nga bëgg te su boobaa yuuxu dina ci ko foogul gis moo tax jarajarul yàqamti moo tax tey bañ ne woo nañ Ousmane Sonko dama ne alhamdulilahi rabbil alamin ndax ñu am jàmm tàggoog naqar bañ nañ convoqué nañ Ousmane Sonko dama ne alhamdulilahi rabbil alamin ndax ñu tàggalikoog naqar senegal am jàmm billahi laa ilaa ilaa huwa loolu laa wax tey nee nañ boo xamoon li lay yoot di nga bàyyi li ngay yoot waaye nee nañ kuy bëgg a dee kuy bëgg toxoo du ñu neex a dëkkal lu mu def xeeb ko Firawna ba muy naagu dafa topp Musaa ak ay dagam ak ay nitam waaye fu ñu mujjee ca géej ga fu ñu mujjee ca géej ga nguur gi foofu la ñuy mujjee nguur gi fa ñuy mujj lu neex de nguur gi du leneen dañuy jëndaloo Sénégalais yi perkaal ñoom ñoo war a jënd ay perkaal nag njëga naa ko di ko téye guddeeg bëccëg suba ngoon te xam ni seen yéene mooy ñëw këpp seen kaw seen yéene ngi ñëw këpp seen kaw de ku leen waxati yéen a ngi deseeg seen doole fen na ku leen waxati yene nga ngi deseeg seen doole na fen na ndax yalla moy borom doole ta mom am doole ta mom lañuy bak bàkk di ko kul, di ko ñaan ci malakul ci malakul khudusu ñun xam nañ ñu ñuy bakke yalla xam nañ ñu ñuy kañee yàlla mais yeen xamu lu ngeen bàkkee yalla xamu lu ngeen koy kañee lu ne ngeen nu ngeen poisonné ngeen xam nu ngeen rayee ngeen xam nu ngeen dictateur ngeen xam nu ngeen structure ngeen xam ñun nu ñuy yalla di kañ lañu xam ñun xamuñu ray nit wuñu ci yaruñu ko ko xamuñu ko duñu assassin mais dañuy ñeen yàlla ñay ñay rey nit ak ñay torturé nag yàlla dina leen toroxal ba ñooy reyante seen biir ñooy poisonante seen biir te ñooy weerante seen biir ana doomu Futa Njaay Tampi ana doomu Njaay Futa Njaay Tampi dañu nekk ci àqaru zamaan képp ko nekkul ci dëgg doon complot ak di woto di complot say kàcc dina weeru dina feeñ ana doomu Futa Njaay Tampi Fuuta Njaay Tampi dëgg la nag ndaxte en tant que jullit en tant que yaayu askan bi jàng sama diine Fouta Ndiaye Tampi dëgg la nag mérito nga lii am li nga am mais yéene wuñ la ko wolof laa la wax dama ne Fouta Ndiaye Tampi mérito nga lii nga am ci sa doom mais yéene wuñ la ko parce que doom du toroxal ndeyam mais bul fàtte yàlla ko wax ci alxuraan boo toroxalee sa ndey ma indi ku la boo toroxalee sa ndey sa doom toroxal la boo ndayu ndeyu wàlliw sa doom toroxal la moo tax ma ni bàyyi leen naan dama am ñaanu waajur rek lu ma neex laay def loo am am ñaanu waajur te tooñ wàlliw yàlla da koy fayul du xool sa sa sa liggéeyu yaay du xool sa ngërëmu yaay day fayu parce que yàlla nee na ñaan yii laa dul delloo ku tàngal xolu waajuram bu la rëbbee dama koy jël nangu ku seral xolu waajuram dama koy jël nangu waaye ku tooñ tooñ a gën a forati ku tooñ man yalla boo ma ak mom ma fayul la fayu bu raw bi nga bëggona fayu waye nak su su la mu no ma ak mom fofu yalla daf la libéré su la mu no ma ak mom demal nga fayu fayu bu tolloog mom waye boo ma ak mom di nga contane de ndax ku ak yalla di nga contane waye yaayu Ousmane Sonko tey ji bu julé xaaja guddi na futa ndjay tampini Yalla ko ak yalla mak ndayam mak bayam gën ndayam ba gën bayam yalla da fayu yalla day fayu ta yalla daf ko fayul nak futa ndjay tampi li nga ñaanal sa dom ji yàlla bu ko dal ci kaw suuf li nga ñaanal sa doom ji sa doom ji yàlla na ko yàlla siggil jubal ko waaye yow li nga ñaan li nga li nga def sa yaayu Ousmane ko xam nga yaayu Ousmane ko sax ñaanoo ko da koo tooñ sosal ko te yàlla dafa bañ sos bañ fen yow da nga fen sos tuuma yaayu Ousmane Sonko xamaloo ko dara yaayu Ousmane Sonko moo gën a sell sa nday gën a sell sa baay gën a sell sa ndayu nday gën a sell sa baayu baay yow fuuta Ndiaye tampi Fouta Ndiaye tampi la xool xam ne doo ko set doom ju Fuuta Njaay tampi ka ngay dem plainte naan coro manday laa ma ngay dem plainte dama nga plainte sa bopp yow yow Fuuta Njaay tampi da nga war a dem plainte sa bopp Fuuta Njaay tampi gëm nga ni léegi def ko ci lu bon lu ne lu bon mooy wàcc sa kaw Fuuta Njaay tampi gëm nga ni lu waay rendi sa loxo lay nàcc ba nga ko rendee sa loxo la nàcc de taq na ci sa loxo doom ñëw taqal la ko Fuuta Njaay tampi gëm nga ni deretu téegal du mooy lupp borom lu waay rendi sa loxo lay nàcc deretu téegal bi ñëw na ci yow ndax sa doom téegal na la fuuta njaay tampi gëm nga ni deretu téegal du mooy lupp borom deretu téegal bi dal na la ndax sa doom ñëw na téegal la fuuta njaay tampi te des na ñeneen ak ñeneen ku ci nekk muy nguur gi ñëpp seen doom yi dinañ leen téegal man maa leen wax lii xam nga live woon naa fi live boo xam ne nee naa leen duma du ma ci waxaat mooy live ba ma leen waxee na woon Youssou Ndour feebar na mu jóg di camoufler ci saa si mu génne benn taxi ne damay dem Rwanda ba mu demee Rwanda gis ngeen kanamu bi ni mu mel da doon camoufler ñu ne déeta waay ma ne leen Touba bi di ngeen di ngeen gis ñi tëdd ñi am problème mu camouflé yorox yorox dem Touba di fa wax waxu waxu ñàkk saxandal waxu ñàkk fay la defe ni nit ñi dañu dof dama ni man romb na maa kàcc du ma kàcc man sama guddi gu jëkk ci bàmmeel laay xool neewoon naa leen ñoom ñëpp di nga leen yërëm ana Ablaye Daouda Diallo ana Abdoul Mbaw live boobu dama ni denc leen ko laa wax du effacé wu live boobu li ma ci wax dara du ci deñ incha allah live boobu dara du ci deñ du nee nañ dañuy préparer Ousmane Sonko incha allah 2022 bi di ngeen gis lu ngeen mës a gis 2022 bi ah bu ñu amul gàcce ñëw Ousmane Sonko jëndee leen ordonnance dinañ am gàcce waale ko ci kawlal di laajte lu xew ci biti di bëgg a dee te duñu mën a dee sama gaay yi paralel doomu aadama nitu yàlla waaye bul xam ne yàlla di wàccee sa kaw. sama gaay yi paraleel doomu aadama mais bul xam li jóg doomu aadama jegee yàlla guddi di ko ñaanal suñu borom di ko ñaanee ci suñu borom yàlla wàcce ko mbugal ci sa kaw mu ko wàcce ci noonu yonent yàlla yi sama gaay yi Ousmane Sonko du seen morom du seen morom ab baay sama doomu askan la nag sama doom la bokkuma Pastef mais dama koy défendre ndax ci askan bi la bokk ndax yaayu askan bi laa woote maman bu leen neexee woo leen Ousmane Sonko dañuy seetlu gaay yi di seetlu réseaux sociaux yi bu me ñu dem boko ko bu mu ñu ne ah sama njabar jappagul da njabar bi la xol fu mu tol ni ndax dañ leen jabaral ne bu leen nexé seeti ko temps bi rek wolen ne wo leen ko wo leen ko mané jabar kat bu leen ko wax katch na fen njabar kat bu leen ko wax katch na fen man gisuma kat bu leen jox victoire dedet man gisuma ko ci sama gis-gis ci sama yek yek. dañ ma koy nangul mais gisuma kat buy jox gouvernement bi victoire ci Ousmane Sonko kuko ko wax katch nga fen te ku lek sen xaliss ci lolu nax na len nax na len lima ma a gis de moy ah man de lima gis moy ku ne jënd sa perkaal rek xaar lol da la gis ku ne jënd sa perkal. xaar comme da ngeen ne da ngeen jëndal Ousmane Sonko perkaal bu yeboo ngeen jënd sen ngeen xaar man de li la gis ta am ci plein droit ku nekk ak li nga gis ko dang dang da koy nangul ndax ku nekk ak lila yalla may ku nekk ak lila yalla may sama gaay yi gëm leen yalla te nangu dogalu yalla te wote jam jam dañ koy sakku fitna ku ko Tal yalla tal ko sa kaw ndax yalla mo ne rëbb na koy wo fitna ta yalla ka don du delu gannaaw de ku yëkkati fitna ña nga lo fitna ñoy wëlbal ko jël fitna bi këppale ko olof la len wax nak yalla neena ci alquran rëbb na ko ye fitna te kep ku ye fitna la la lo fitna fitna ba moy jël këpp sa kaw xamna nak deggu len olof waye gis nga ba abraha jele ñey ba ne day dem kaaba ga mu jup kaaba ga bañ xam nga yalla ko bañ lo yalla gogo bañ lo ñey ba yalla gi non lay bañ loo am ay taqadar mu bañ loo ak ay ñi ngeen warona a xeexloo ñu ñu bañ loo ñëw fekk si leen ah, ay way alhamdullahi rabbil alamin yuuxu dina ci fuñ ko foge wul du ne ngeen da ngeen ni meuna préparer du ne ngeen da ngeen ni meuna préparer and ak français pour xex Sénégal dotu len ko defati laaj len yalla lu mu len parel man da duma ko wax ndax ñemew ma nonu yalla waye comme sen jabar xati dañu dañoo ñeme yàlla bay gisee yalla nañ dem laaj yalla limu len parel tay ngeen dee tay ngeen dee ci mbugalum yàlla buy wàcc seen kaw da ngeen wax Ousmane Sonko defu leen waxu leen mi ngi ci roqam di liggéey di jaamu yàllaam ngeen bëgg ko pàdd ci ay kàddu waa France naan ay dañ koy jéem ci ay communiqué ñu takal ko ci pour yàq dossier am sama gaay yi dossier bu yàlla defar mënoo koo yàq sama gaay yi dossier bu yàlla defar mu def mënu koo yàq sama gaay yi gouvernement Sénégal gëm leen yàlla ànd ak yàlla te woote am jàmm woote wu leen jàmm du ngeen am jàmm ba ngeen di gis ngeen mbirum ab Adji Sarr bii dossier Adji Sarr bii pataas bu tàngale seen loxo bëgg bëri bañ bëgg bañ bañ bëri pataas bu tàngale seen loxo ñaaw na ba noppi metti na ba noppi tar na ba noppi dootul sedd ci kaw suuf dossier Adji Sarr bi képp ku ci dugal loxoom oustaz Aliou Badara Ndao képp ku ci dugal loxoom François bu képp ku ci dugal loxoom xale yi 14 mois yi képp ku ci dugal loxoom doomu na képp ku ci dugal loxoom tuuma Ousmane Sonko képp ko ci dugal loxom wallahi lazi la ilaha illa huwa préparel du ngeen am jàmm ci kaw suuf préparé wu leen alalu askan bi ngeen sàcc noos leen ci li ngeen ciy noos gaaw te xam ne yàllaa ngi ñëw wàccee seen bugal parce que yàlla du ànd ak kat du ànd ak kat du ànd ak raykatu nit du ànd ak euh, dictateur du ànd ak maire du ànd ak assassin ñun yàlla la ñu àndal wa niqam xasbunallahu wallahu yaqsimu minan nas sama gaay mus mun gis nga nit mënta mus waane ba xam yalla yi pare suba koy poisonné nang ko tal koy jema ray nang ko tal koy jema tej nang ko tal te képp ko ngeen paxeel xol leen bala ngeen a ak jamono yooyu ngeen koy paxeel lu leen dal ak luy wacc sen jabot ñi ngeen di xol xool li ñew ci yeen ak liy wacc sen jabot sama gaay yi bopp yamul jëmm de sama gaay yi bopp yamul jëmm de sama gaay yi bopp yamul jëmm de sama gaay yi li yalla maye yemul de li yàlla maye yemul de doomu askan bi ay wàllu yëpp ngi ci ay xut bi ñu ngi ci yàlla dafa may jaamam làq ko jox ko mbubb mu oyof mu sol waaye ay boo ko laalee ci roqam ay boo ko laalee ci roqam allahu akbar allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah bàyyi leen Ousmane Sonko bàyyi leen Ousmane Sonko bàyyi leen Ousmane Sonko du ma waxu magum xamoon naa ko magum waxoon naa ko de fii laay faguma fi laay bu may gàcceel de bàyyi leen Ousmane Sonko bàyyi leen Ousmane Sonko bàyyi leen Ousmane Sonko wallaay xale bu ko ci song ma nga koy tër te mag bi koy tër maama maamaati mu juddoogul ana mag ba kon ana mag ba bàyyi leen gor buy nelaw ci roqam ngeen koy jéem a yee xam nga Macky Sall dafa ne lu fi amoon dootu fi amaat aha kay dootu fi amaat gis nga xeex bi su fekkee bëgg ngeen dëgg dëgg jinne yeeg malaaka yi ñëpp ci laxasu ndax da ngeen dëgër bopp te ñaan nan yàlla te ñu ngi xaar ni ngeen di joxee seen passeport di tapé ñu tàppe visa ñu leen dem leen ba suba noonu nañuy ñaane yàlla di xaar ndax ñun duñu foqati yàlla la ñuy xaar yéen yéen est-ce que ànd ngeen ak seen xel man duma wax dama leen yërëm parce que man dama ñaan ba pare ne képp ku leen yërëm yàlla bu ko yàlla yërëm yéen est-ce que ànd ngeen ak seen xel gouvernement bi bu ngeen xoolee ba dossier bi ba ngeen paree ci dossier bi ba tey ana seen gars yi ana ñu doon wax ana garçon ana Farba Ngom ana Mamour Diallo ana Aïssatou Diop Fall ana avocat yi juge yi magistrat yi génn leen génn leen xoolaat leen seen bopp allahu akbar allahu akbar Firawna lan moo ko yóbbee dëgër bopp Firawna la moo ko yóbbee lii dëgër bopp da ngeen woo Ousmane Sonko nan xaaruñu làmbatu bu nooyoon tey rek ngoon ñu yóbbul ko convocation bi fu mu toll nii dañoo bëgg a bett de te bul ñu bett lu leer laa leen wax taqaleen téere dañoo bëgg a bett de tey jii bu ñu yolomaloon ñu yóbbu convocation bi waaye dama ni patriote yi suba su ma le suba su xëyee na terrain bi jax les réseaux sociaux yi jax mu mel ne léegi léegi dañu woo Ousmane Sonko buñ leen may dara buñ leen may dara sama gaay yi ku dëdd salal war a dee da ngay dee ku génn xeex war a dee da ngay dee ku ne di nga neex te doo jaar ci metit ku ne di nga neex doo jaar ci naqar naqar sa bopp ana Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam xeexul xeexul ba deretam tuuru te moo ñu gën foofu maam borom Touba dañ ko doon yóbbu di indi ba yàlla ne du dee ci loxo tubaab yi deewu fa de seede baa ngi nii maam borom Touba ba yàlla ne du dee ci ci ci ci tubaab yi deewu fa de te daj na lu ne seede baa ngi nii nag moo tax ma ni bu xeex jotee na ñëpp génn bu rayante jotee na ñëpp génn jixaat la ku ci warul doo ku ci warul dee doo dee ku ci war a dee da ngay dee te nag kaay ma wax leen de xeex bi dina ñëw rek bu démb ba de 8 mars ba bii mooy raw xam nga lu tax yàllaa ci dugal loxoom ñi war a xeex ak ñoom ak ñi nga xam ne dañ leen yebal pour ñu ñëw xeex ak ñun dañoo bañ yàllaa leen di bañ loo gàntaloo leen ni ñay ba lu leer laa leen wax ak xool ak quraanu karim ak xool histoire na sama gars yi neex na ba noppi bu ko kenn yàq neex na ba noppi bu kenn dog yoon bi neex na ba noppi ku yaakaar ne nag di nga taal Sénégal génn réew mi ndax nga sa bopp bés boobu yàlla mooy kole say tànk la lay téyee sax doo ko xam te foo mënti dem lu la war a dal dalay dal ku taal fitna yaakaar ne yaa ngi daw làqu ji nax nga sa bopp nax nga sa bopp noo Sénégal dina naam jàmm Sénégal yi daq ci mi Sénégal incha allah mooy dàq ci réew yi xam nga da ngeen doon wax Sénégal dañu war a génn xeex gi noo non non non ana xeex ñii génn ñi bañ a génn ana waa poste tey waa poste ana ñu tey ñu ngi woote xeex ndax bañ doon woote manifestation daal nañ génn ana waa poste tey gis nga li dal poste dina dalaat beneen beneen service dalaat beneen service déggu leen ma de ñëppay génn ndoo kenn du wax sa morom fa nga jëm ku di nga xam fa nga jëm allahu yàlla nee na sama jaam yi sama gor ñi dama leen a tegoon nattu yéen ngeen talu leen ko di jaamu xaalis toog seen roq ñii seen bureau ñii seen kër ñii seeni néeg baña a génn waaye tey waxuma nattu mais yéen ñi toogoon dinaa leen bugal bu tar ba ngeen génn fal force kii mooy yàlla moo tax ma ne xeex bi du wéet xeex bi ana ñoom MC Niass ana ñoom Moustapha Sy te ñeneen ak ñeneen di dinañ ñëw xam nga yàgg naa wax ne leen Macky Sall dina am kaddu yu muy jënd kaddu sëriñ su muy jënd tegu leen ci seen bët am nañu noppi de am nañu noppiwul du ne ñëpp nag ndax ñëpp yemuñu am na ñoo xam ne seen bëkk néeg yee leen tur lëndëm waxoon naa ko fi de te yàgg naa ko laay live de am na ñoo xam ne Macky Sall dina jënd seen kàddu waaye nag du ñëpp yàgg naa ko wax de te weddi gis bokku ca de te waaye heureusement nag Sénégal bu tumuranke magum dëgg waaye tumurankewul dëgg ana dëgg xale yi gis nañ dëgg kott dëgg ànd ak dëgg di wettali ko dëgg di gunge Ousmane Sonko dëgg eh waay sam allahu akbar ñun sunu ñaari yor nañuy yor sunu ñaari yar yu saf-saf suñu ñaari yar yu saf sàpp la ñu yor yoo xamante ni comme jaasi benn bi mooy ñu ngi lay xaar woowal Ousmane Sonko benn bi mooy setal ko fal force déggu leen ma de ñaari yar nañu yor bu raw ñaw ba yor ja ba raw jaasi ñaari yar yi lan mooy tax mu génn ñi ngi déglu fu ñu woowee Ousmane Sonko setal la Ousmane Sonko fal force ndax dossier kàcc dossier fen kenn du ci tëj suñu leader dossier kàcc dossier fen kenn du ci sànq suñu leader dossier kàcc dossier fen kenn du ci tuumaal suñu leader du ya catch, kàcc du fan, yëg fen kenn du ci booleeg suñu leader ay mercenaire ay dicta dictateur assassin mervi non non ñun ñooy ndawal suñu borom te ndawal suñu borom ëpp doole loolu lépp te yàlla dooleel nañu te ñu ngi xaar yàlla nee na sama jaam yi sama ndaw yi maa leen yebal xaar leen ma bese yi ñëw ma doole leen yëkkati leen ngeen mel ne pas lëpp ci kaw gouvernement bi incha allah allahu akbar kii mooy yàlla soo ko laalee soo ko laalee dinaa la dóor soo ko laalee soo ko laalee dinaa la gaañ bisimila Sonko Macky Sall Sonko luñ koy waxtee sax mi mi ngi tax may juum sax ndax yàqamti yàqamti loo xamante ni rek oh Sonko mooy xolu xale yi Sonko mooy xolu àdduna Sonko mooy xolu mag ñi Sonko mooy xolu màgget ñi Sonko mooy xolu diaspora immigré faatu faatu ma ne ku bëgg a laal xole yi laalal Sonko ku bëgg xale yi wax laal leen Sonko loolu yàlla moo ko def ci xolu jaam yi dama ni Sonko mooy xolu góor ñeeg jigéen ñi Sonko mooy xolu liir yi Sonko mooy xolu ñiy jàng raam Sonko mooy xolu ñiy jàng dox mooy xolu wàll yi sonko mooy xolu xutbu yi sonko mooy xolu ilimaan yi sonko mooy xolu sëriñu daara yi sonko mooy xolu eh, doomu aadama yi sonko mooy xolu diaspora moodu moodu faatu faatu immigré yàllaa ko dogal moo tax ñu ne soo ko laalee soo ko laalee dinañ la gaañ soo ko laalee soo ko laalee jëndil perkaal Sonko toogal liggéey sa liggéey jël sa bic nu la neexee jël sa fooy nu la neexee bind nu la neexee ba ñu gis ko la laal Sonko boo wàccee àndal ak say garde rapprochée dem añi naan sa naan sa ndox nan sa glace nan sa njarum sow nan sa attaaya bu la neexee jaaxaan raay sa biir ba ñu gis ko la laal Ousmane Sonko soo wàccee pause daagul nànk yàgg say garde rapprochée dugal sa kër añal sa añ xaqataayal naanal sa ndox naanal sa njarum soow jële sa kirdan ñu xool ku la laal ñu xool ku la laal yaay xolu àdduna waxuma xolu Afrique xoolu àdduna yaay galaasu àdduna yow ku la gis bég ku xiifoon bu la gisee suur ana xale ya xale yi mbuur ya lu ñu wax suur nañu añ sonko moo fi ñëw suur nañu añ sonko moo fi ñëw moo tax ma ni maratuñu sonko moo fi ñëw maratuñu gis nañ sonko maratuñu sonko la ñuy xaar da ngeen di woo sonko ay ca bisimilah ñu ngi leen di xaar da ngeen di woo sonko ñu ngi leen xaar sonko de suñu suñu bébé la de ñoo koy de boot ko rogganti ko waaw takal ko bébét nak. di ko sexal muy lekk tanan nan ko dara du la takk dugal ko ci climatiseur am dugal ko ci berceau ne ko tëddal nelaw ba ñu gis ko la laal may la wax lii kay Sonko ku mu naqadi nga baax maandu ragal yàlla comme moom wax askan bi dëgg lii mooy wax ci lii mooy coow li Sonko dara mayu ko ko jub moo ko ko may maandu ragal yàlla ngeen ne ko du fii fii la fal force fii la fal force fii la ku yàlla raxas si xol yi ngeen defal fokk ngeen defaat ko si si xol yi Nak sa askan torop tere sa askan ba yalla raxas la ci xol yi toroxal la nga ne fa fasu ñu bëgg la may wax moy jël auto neena yaay day wo ay nitam dem leen xaar ma ma ñew tapet bo gis day xaaraan tapet bo gis day wote bala juk tapet bo gis day xexlo du xex day xexlu tapet bo gis day yónnee ñun tapetu ñu ndax yalla nañu mooñaale suñu xol ñu ndax alquran mo suuxal suñu tapetu ñu ndax suñu xol bi yalla nañ ci fessal sama gaay yi Cheikh Ndiaye Baara sama gaay yi bàyyi leen ñu leen di diaboliser waa Baara Ndiaye Cheikh Ndiaye Baara Serigne Ndiaye Baara sëñ Baara Ndiaye audio yooyu bu ko waxee moo tey ana commencement ba ñu sëkkaloon Sonko du ñu mujj bi du dëgg liñ naan saay-saay waxul dëgg waaye yàq na xel Serigne Ndiaye Baara bari na ay morom ñoo xamante ni wax nañ ko ba pare àndaat ak Sonko MC MC du APR la woon du mu ngi nii tey ne damay campagne ak sama gaay yi bàyyi leen ñu leen di fowee waa APR yi ay naafeq na ñooy def ay yii bëgguñu nekk en jour bëgguñu ne campagne dama ne xam nga lan mooy coow li fexe leen xale yi am carte d'identité te ngeen fexe jaay carte yi ibbi cellule yi lii lañ leen wax lii mooy liggéey bi leneen du liggéey bi ak di xaar di déglu Sonko di ko may nopp sama gars yi ngir yàlla carte Pastef fi génne leen ko jaay ko te ibi te ibbi eh, cellule yi lii lañ leen wax ibbi leen seen liir yi fexe xale yi am carte d'identité focus 2024 focus 2024 lii la ñu wax Cheikh Ndiaye Bara dama bëgg ma ne sa doom sax dalay tooñ wëlbati ko su ko jéggalu la soo ko fàttale sa xol tàng mais da nga yal na ko yàlla jéggal mais lan la Cheikh Ndiaye Bara li mu fi ñeme wax kenn da koo ñeme wax am nañu ñu nekk ci yewe askan bi est-ce que attaqué nañ gouvernement bi ku ci mel ni Malick Gakou est-ce que attaqué na gouvernement bi est-ce que indi na yewe askan bi dara est-ce que yokkal na ko dara Khalifa Sall est-ce que attaqué na gouvernement bi kep ko Macky Sall yor ce dossier est-ce que attaqué nga gouvernement bi Cheikh Ndiaye Baara lutax ñu lutax ñu wax ko li di yak autom kon ngeen xam dañ ko koromp ci suuf mu bañ ku ñu koromp ci suuf nga bañ dañuy buddu xadal ci kaw sama gaay yewu len way gis nga buñ lay chompal ci suuf nga bañ dañ lay buddu xadal ci kaw kon war ngeena a lutax ñu def ni autom bi lutax ñu koy jaboliser ni parce que dañ ko nax taf yeungal mu bañ lank na len gor laa moo ñu koy def ni diko sonal da ngeen fàtte fii ku fi gor ñu sonal la ku fi gor ñu indi sa waxu démb di la diaboliser da ngeen fàtte loolu Cheikh Ndiaye Bara bu la neexee saaga ñu laa wax yaa tey li mu fiy défendre kenn du ko fi défendre li mu fiy leeral kenn du ko fi leeral mook dàmbooj ak ñoom kele door yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla sàmm leen képp ku leen nar a poisonné yal na ko yàlla poisonné képp ku leen nar a poisonné yàlla poisonné bi wëlbati ko doon say garde rapproché ay gor lañ ay xale yu ndaw yoo xamante ni nee nañ maa lànk duñu sàcc dañuy daani suñu doole ay xale yu ndaw corrompe nañ leen ba sonn pour ñu war la ñu bañ ñii ñooy gor garde rapproché Ousmane Sonko yéenay yéenay boos yéenay gor yéenay garmi yal na yàlla sàmm leen garanti leen képp ku leen féete ginnaaw di leen di leen a a galgal yal na yàlla toroxal borom wàccee mbugal si kawam combat continuer force à force fii ku fi gëm yàlla yàlla Ousmane Sonko maa ngi lay xelal live bi na ko déglu lu mu yéex yéex na ko déglu Ousmane Sonko est-ce yaa ngi bàyyi xel ay ay ay waa TFM nii ay RTS est-ce que xam ne site yi leen di wër nii ñoom seen bopp ñoo ko moom est xam ngeen loolu Pape nga Ndiaye du moom moomoon euh, Sénégal Sénégal 7 xam nga moo ko moom waa micro yooyu est-ce que duñ ci koromp gars yi soo ko xam nga lu ma lay xelal del jël benn micro boo xam ne yaa ko moomal sa bopp mu foor ñu lay sori di la dànn fële un di teg seen micro yi foofu ngay wax mu ñu koy mu seen micro yi sa micro fort di ko di ko dégg ñoom boo nekkee saay-saay mu capable de tout da ngay préparer man nag chaque jour man sama xel man day naaj sama xel dama koy ñawal parce que boo dëkkeek saay-saay dangay ngay xalaat lu ñëwagul Ousmane Sonko dama ni jëlal benn micro ba nga xam ne dafa fort dégg nga si journaliste yi lay dar noonu ak ay maanaam journaliste jeunes yooyu di la dar nga defe ne ñoo seen site am na ñoo xam ne moomuñu ko de ñu nekk biir RTS ñu nekk TFM ñu nekk 7 fem ñu nekk 2 ñoo ko moom fa lañ koy jaarale nañ la sori lu mat 1 te léegi sax bul jël journaliste yu bari bu ñu paree ñoom ñu jaayante ko seen biir jëlal sa benn euh, micro bu fort nga taxaw ñu dàndale 1 mètre nga wax ñuy dégg yaakaaru askan bi nga ginnaaw yàlla yaakaaru Afrique nga yaakaaru àdduna nga ndax am nga tubaab yoo xam ne dañ la bëgg ndax bu ma ne am na tubaab yoo xam ne dañu la bëgg war nga koo gëm ndax tubaab ba ñëw Ziguinchor jël peel peelal la kon bu ma ne tubaab yi bëgg nañ la war nga koo gëm ndax ñëpp bañ bonuñu am na ñu ñu ci bëgg moo tax man la Ousmane Sonko Ousmane Sonko àdduna nga te woo ko waree gëm gëm ko ci tubaab bi ñëw di la peelal Casamance yal na yàlla sàmm la yal na yàlla garanti la ni yàlla garanti yonte yàlla Moussa ci nguuru Firawna ba mu fole ko na ko yàlla garanti Seydina Ousmane Sonko damay défendre sama leader di xeexal sama askan bokkuma Pastef nag mais damay xeexal sama askan ndax Ousmane ko ci doomu askan bi la waa Pastef ay ji ay nit nañu ay jeune lañoo fa ne doomu askan bi lañ dama leen xeexal Mimi ture bu ma leeree ne dëggu la it dama koy xeexal ndax doomu askan bi la waaye nag duñ ko dugal ci yeewi askan bi de déedéet ànduma ci de dinaa ko xeexal ngir lan ragal yàlla ak li ma sama diina eh, eh, sant mais pour xéxal ko mu dugg yeewi askan bi pour xéxal ko mu dugg passé déedéet déedéet 10 ans mu nek sal bu lo Macky Sall bayi len ci xel 10 ans mu nek sal bu lo Macky Sall mom na na xéxal bopam mom na nek gaynde bopam mom na jël parti bopam xéxal bopam parce que nak ba muy metti tartar ñaata ak ñu ñuy tek ak tartar tar te moom loxoom a ngi ci moy p diñu pad kon dama ni bu xéxal ko jotté dina ko xéxal ndax doomu askan bi la duma ko sétane waye nak pour mu dugg Pastef déedéet pour Pastef dem dugg ci Mimi Touré déedéet du ma ko nangu de déedéet du ma nangu Pastef dem ci Mimi Touré du ma nangu Mimi Touré dew ci Pastef déedéet ñoom ñëpp samay jaboot lañ dama yéene xeexal waaye du ma nangu ñu ànd de déedéet luy tas bokk du ma ko def luy tas dëkk du ma ko def luy tas ànd du ma ko def luy tas deret du ma ko def te loolu day tas mbokk Mimi Touré ñëw ci Pastef day tas mbokk Pastef dem ci Mimi Touré day tas deret du ma ko def de day tas sëy de du ma ko def de ku ne na nga yem si sa bopp rek am sa jàmm xeexal sa bopp Pastef fa xeexal boppam ba fii Mimi Touré xeexala sa bopp rek ba ba ngay rëcc parce que wóoruñu ndax payub yàllaa ñëw kon bu payub yàlla ñëwee ñu waane di la xëcc suñu bopp yàlla teg ñu mbugal te loolu laay bañ magum xamoon naa ko magum xam waxoon naa ko laa du ma magum xamoon naa ko déggu leen ma de ma Mimi Touré dama ne su fekkee fayum yàlla moo ñëw yàlla moo ñu fayul fajal nu ñu wëlbatiku jël ko indi yàlla ne ah, kon yéen dama leen di xeexal ngeen may wor xaaral ma wàcce mbugal seen kaw. déedéet loolu laay bañ de du ma du ma magum xamoon naa ko waxoon naa ko laa loolu laay bañ de patriote ngeen ànd ak seen xel dégg nga pour pour leeral leen wax ji. Cheikh Bara Ndiaye nag bu kenn wax ci ay waxam dama bëgg a wax bu génnee moytu leen audio yu ñu leen di tegal ngeen di am gàcce Cheikh Bara Ndiaye li mu fi défendre mi def défendre ko fi. ci maanaam wolofal nit ku ne boo defee rey nit def lu ne tuub ci yàlla ne dootuma ci dellu sax mu baal la waxantuma la ak Cheikh Bara Ndiaye audio kese mais am na loo xamante ni ñun ñu ngi ko def suñu diggante ak suñu borom wala am na loo xamante ni tey jii xaritoo naa ni wax naa ko loo xamante ni tey jii bu ko bugguma mu dégg ko mais loolu la rek njumte njumte du wees Cheikh baare nekk na ci loo xamante ni woon du dëgg wax na ko gis na dëgg bàyyi lu dul dëgg ci dëgg mais léegi lan la sama gaay yi nak nek leen julli ta nek leen di jéggale di jëlale Cheikh baro xol leen li def autom bu àndoon gouvernement dañ ko ko def waaye sama gaay yi nag taal leen seen xel yi tayé seen xam nga Cheikh baro buñ ko compaloon mu nangu duñ ko ko def compal ko mu lank motax ñu def ko ko sama gaay yi àndale sen seen xel ak seen sago neena jeudi dina wax bo xëyee dañu bari dañ am de sama gaay yi bayi leen bu ngeen éné leen nit lu cuq ñew rek ngeen ngeen yulli ci seen xol sama gaay yi wax dafa graw te wax bu xasee ba génn day noonele ay nit ngeen moytu ko heureusement nag Cheikh Bara moom am na ànd nag xelam ndax nee na nit ki li ngay tane nit booy sangu doo ko simmi man de kenn mënumaa jaxase sama nitu démb kenn mënumaa jaxase kenn lu ma waay di jaxase ni dinaa teey xool ba gisal sama bopp te bala maa gisal sama bopp naa la woo conseiller la man ci lii ay dox mais nit du bayi ne bàyyi diw ma bàyyi ko ko ma bagn ko duma ko def man dokuma ci lolu parce que dama jang sama diine xam li yalla wax ci alquranu karim kon duma wor yalla duma teggi kaddu yalla te ku teggi kaddu yalla wor yalla do ñaan yalla mukk mu may ku dul di jëlale do ñaan yalla mu may la yéen Ousmane Sonko ngi ni am ñuko jégué fouf amna ay jigen ñoo xamni ne ngi ko jégué ñul kuku di reetaan bu ñu reetaanee seen reetaan ak Idrissa sek ben lañ warkat lañu yor jang na leen xam na leen Ousmane Sonko am na ay jigéen ñu ñuul ku ku nekk ci moom seen reetaan ak reetaanu Idrissa Seck benn naan reetaanu korse la reetaanu hypocrite la reetaanu warkat la mais Ousmane ko da di koo xamante ni doo ko jekku ndax du jekku doomu aadama di ko def lu bon mosul jekku nit di ko def lu bon Ousmane ko mooy ki nga xamante ni yàlla da koo garanti min def mënu koo yàqal mais suuf ak asamaan bu doon wax nii nii nii billaay yuuxu dina ci ko foogul am na ñu jege di ko wor di ko jéem a jaay mënuñu ci dara ndax iñaan ak soxor ndax iñaan ak soxor iñaan nak bu la rayagul wala mu toroxal la ba nga ñak sa lepp iñaanagoo nangul len dogul yalla nangul len dogul yalla nit sax dina jur domam domam upp ko wursak fuf nit dina jur domam domam gën ko ci yalla nit dina jur doomam wëlbatiku sukk ne ne domam ñaanal ma yalla, moko def nañ len nangul dogul yalla nañ len dogul dogul yalla Ousmane Sonko amna man amna dom mais yaayam moo ko may doom ju mel ni Ousmane Sonko yàlla moo ma may doom ju ma am parce que yàlla dañ koy nangu mënoo nekk muus mucc ba am groupe boo xam ne du am njiit foog mu am njiit loolu la yàlla dogal yàlla moo ko moo wax njiit ci alxuraan nguur nag yàlla moo koy joxe comme toog naa fii ku ma neexul du fi toog ku ko wax kàcc nga fen nga nguur yàlla moo koy joxe ku toog ne man maay toog ba faw wala sama doom wala may toog ku ma neex wala ku war a toog ma faagaakal ku ko wax kàcc nga fen nga yàlla moo ne ka zabta ka zabta ci alxuraan ci arab mooy fen nga yàlla moo ne ka zabta dama ni ku taxaw ne nguur gii maay toog ba faw maay jox sama doom wala maay tànn ku ma neex ku ko wax fen nga ka zabta ka zabta loolu la yàlla wax fu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam taxawee ne ku ma fenal pare sa sisukaay ca safara waa léegi France ba ñu saagaa Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam nag moo tax jàmm du fa am jàmm du fa am du ñàkk nañ gasoil di leen ñàkk leneen du gasoil te dinañ torox dinañ mbugal dina wàcc seen kaw moo tax ma ne waa France képp ko am suuf fii wala nga bàyyi sa mbokk fexeel nga jubeeg sa mbokk ndax France jàmm du fa am ndax dañu saaga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam complot fa oustaz Alioune Badara Ndao duñu am jàmm ba ba ñuy dee complot fa Ousmane Sonko nitu yàlla ki sama gars yi combat continuer moo tax man leen ku yàlla na ma fay lu baax loo la gis nga ku bon ku yées buy dem ku baaxay ñëw ku weddi laaj Firawna na ba mu sonalee dëkk ba ba yàlla yërëmee waa dëkk ba Moussa la fi indi teg mu baax gis ngeen moo tax bu leen yàqamti bu leen yàqamti bu wootee jotee na ñëpp génn kër yi bu fa kenn des bu fa kenn des Ousmane Sonko bu wàccee jotee demal nga wàcc temp nank dox nank booy génn sa bureau nel laa xawu la wala xawatee laa bi laa la ni man waqul wallahu yaqsimuka minan nas usman Sonko nga genn sa biro se sa sa sa sa sa sa mairie ne te waqaltu la wala xawla wala xuuta laa billah duggu sa auto wàcc sa keur ne bismillahir rahmanir rahim tari sa qul huwallahu dugge ko muy lan carte dante suñu borom bi tagg ko bakk ko kagn ko jàmm nga yam agn ba sour nan sa ñorum sow bu la setan télé gis ma ke di Korea reetaan di ray sa bir ya tay bañu gis ko la laal ya tay bañu gis ko la laal kon dama ni gars yi maa ngi leen di ziyaara forsa forsa yaayu askan beeg leen di ziyaara di leen ñaanal jàmm di kontaan ci yéen te am ci yéen mbégte yéene wu ma kenn lu bon fexelu ma kenn lu bon waaye nag yàlla moo ne ku leen yéene lu bon wala ku leen tooñ fayu leen bu ngeen ko mënul ñaan leen ma may leen bu ngeen ko mënul kalaame leen ma ma fayu leen te kon dama ne Ousmane Sonko yal na yàlla guddal sa fan rëcc la ci gàtt fan ak déggu ñaaw képp ko na ma dëgg sa dëj yàlla nga dëgg dëjëm nañay ba gàntaloo woon Abraha ba muy taji na bi ba ñu wuti pale ba yàlla am na ko mën na ko ne ko yàlla def ah rafet naa ci njot de rafet naa ci njot de xaw na nag kumpa yàlla ndax ma ñemee ma yàlla waaye rafet naa ci njot te dama ni Ousmane Sonko yàlla na la garanti la garanti say garde rapproché garanti la aar la suturaal la bépp mercenaire bu jóg di la jógal yal na yàlla toj bët yi yal na yàlla damm tànk yi yàlla am na ko mën na ko da ko def bépp mercenaire buy jóg yal na yàlla toj bët yi damm tànk yi yàlla nga réer say noonu yàlla bu noon gis sa sa buntu kër yàlla bu noon gis sa jëmm ji yàlla bu noon gis sa euh, fépp foo taxawaalu yàlla bu fa sa noon gis dama ni Ousmane Sonko yàlla la yàlla teral yàlla la yàlla sutural yàlla na yàlla yiir aar la dama ni Ousmane Sonko yàlla na suñu borom bi ne Jibril kaay Ousmane Sonko sama jàmm bi dëggu na bëgg naa ko bëgg ko yéegal ci kaw asamaan ne malaaka yi ñu bëgg ko ma tabbal ko ci xol jinne yeeg malaaka yi bëgg ko allahu akbar Ousmane Sonko yalla na yàlla teral la nim terale yonte yalla Ibrahima terale ko yonte yalla Musa terale ko yonte yalla Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, yalla na ko suñu borom terale Ousmane Sonko Ousmane Sonko sa yaaji yalla na fan ak say bàjjan ñep ba fekke ñu gunge ci nguur ga mo malikul mulk malikul mulk ya malikul mulk yaay borom nguur yalla na yàlla ci nguur gi ci Macky Sall teg ci loxo Ousmane Sonko Ousmane Sonko yalla na yàlla sàmmal la la fu yaq yegul ni jant ak wer ak sore eh, ni jant ak bi biddéew sore doomu adama yi la nga ko sore say non bu duñu la jot yalla nga doon sa safara non yalla nga doon sa mbugalu non ba ko ci laal laq ku la laal nga moo doon mbugalam Ousmane Sonko yal na yàlla guddal sa fan ne gudd fan yonent yàlla nuux Ousmane Sonko yàlla nga jubóog sa borom ba loo yóotu jot ko Ousmane Sonko yàlla nga jubóog sa borom ba loo ko ñaan mu teg ko sa loxo Ousmane Sonko yal na yàlla teral la ba loo rafet looy xalaat rek yàlla yombalal la ko lépp lu nar a ñaaw ci yow yàlla na ko suñu borom rafetal bépp fitna bu nar a ci ñëw ñëw ci yow yàlla na ko yàlla suñu borom bi seddal ne seddaayu yonent yàlla Ibrahima ba ko yéefari sànde ci safara sama woo suñu borom Jibril ñëw mu ne ko soxla ma sa ndimbal ndimbalu suñu borom bi laa soxla suñu borom ne safara seddal seddal bu ko daan ror seddal seddal bu la dul lor kon Ousmane Sonko bépp na bu ñëw ci yow rek bëgg a ñëw ci yow yàlla na sedd seddaay ba la dul lor ci sa garde rapproché ci sa bureau ci sa am am ci sa yoonu dem ak ñëw Ousmane Sonko ni ñu la tëjee ci Sénégal yal na la yàlla tijji ci fép ibbi la buntu wërsëg buntu ndam buntu yokkute buntu xéewal يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا وهاب يا رزاق يا فتاح yàlla yaay borom alal yaay borom wërsëg yaay borom buntu yi tijjee ko yàlla ko yàlla tijji Ousmane Sonko jox ko alal jox ko wërsëg bu jóge ci yow yàlla am na ko mën na ko rek a def Ousmane Sonko loo liggéey loo yàlla na barkel loo teg sa loxo yàlla na barkel Ousmane Sonko yàlla yàlla teg la loxo teg la loxo ba teg ku ànd ak yow loxo teg la loxo teg askan bi loxo teg la loxo teg képp ku ànd ak yow teg la loxo Ousmane Sonko yàlla yàlla teral la yàlla yàlla sàmm la yàlla yàlla teral la yàlla yàlla sàmm la yàlla yàlla teral la yàlla yàlla sutural la yàlla yàlla yërëm la yàlla yàlla yiir la la yalla yalla ar la mbégte suñu borom xewul suñu borom ngërëmal suñu borom yalla wacc ci yow Ousmane Sonko dama ni nel allahuma amin amin Ousmane Sonko yalla nga gudd fan ku amin yalla nga gudd fan Ousmane Sonko yalla nga gudd fan ku amin yalla nga gudd fan alaykum wa rahmatullah ci allahuma salli muhammad wa sallim ci ilaha illa anta subhanaka inni allahuma amin yalla yalla nangu ñaan jef sama gaay combat continue jullit du ragal du tiit combat yu yuuxu la jëf fuñ ko de allahu akbar salaamaaleykum wa rahmatullah